kilifa gi nga xam ne euh, moo nekkoon ci wàllu armée bi euh, lem ñu xamal mooy am na lu mu bëggoon def mais dafa toog ba mu yàgg mu xalaat ne su ko defee loolu rek la ñuy fàttaliku ci fête bi loolu rek la ñuy fàttaliku ci fête bi tey say c'est une fête ñu bàyyi noonu mais ren mënoon nañu quand jël matukaay ya ca war à l'avance xamal ko ni ko soo defee nii danañ def xaw ma nag lu ñu waxante ak moom te il n'avait même pas besoin de lui parler c'est une application de la loi parce que yow mënuloo soo bëggee tukki nga am ordre de mission institution bi nga bokk di fay sa biir boo sa indemité jotee nga jël ko même boo ko may ak lu mënti xew delloowuloo ko institution bi lépp loo xam ne arrangé na la ci yëf yi nga di ko jël ba occasion yi mel noonu di feeñ am nga di ko jël ngay ñëw di teew te lañu la sa la liggéey sant doo ko def mais loolu yenul maanaam c'est que loolu dafa doon lu profond parce que nit ku mën a nekk ci maire yi maire yi d'abord pendant tout un mandat bu ñu la tegee bët ci institution bi ñaari yoon lay doon un deuxième mandat ñëw ginnaaw tay bi bu ñu la tegee bët ñaari yoon lay doon muy bis bi ñu la fal ak bis bi ñuy taxawal ay commission nga wëlbatiku jëm conseil départemental bu nga jëmee conseil départemental loo xam ne ñu bëri ci yéen teewoon nañ ko en 2014 ñu nekk ci oto bi di campagne ki nekkoon euh, euh, adjoint ci maire bi di jatara ñëw bëgg a yëg mu ne ko wàccal que tous ceux qui sont incriminés s'effacent ñu génn ci élection yi muy nekk président conseil départemental jël ko tax ko ci wetam bàyyiwaat ko muy doxal nga xam ne kon am na lu am na lu ci nekk.